déedéet tudd sax amul góor tudd lii ñu la Sénégal euh, di tudd amul du loo xam ne euh, sunna la walla neneen su ñi bokkal lislaam bi ay muy la wax ne ëpp na un milliard cinq cent millions mën nga wax ne un milliard cinq cent millions bi ñoom li ñuy def bu doom juddoo mu dee ko góor la ca bés ba lañ koy daal di maanaam judd bi for bi ak dagg kii bi euh, cuucu bi ci la ca day ànd ak turwi ci saa si ñu daal ko ne nangam lañ la tudde lépp ci benn bés lay am mu jeex la ca nag euh, dañ koy feet dañuy rey xar dañuy rey nag dañuy sabaroog dañuy meccatoog yooyu ndigal kenn képp moo koy joxe ndigal kenn képp moo koy joxe te yàlla la kenn képp moo koy joxe te yàlla la kenn fekk ko ci nag diina ji matoon na lu jiitu yonent bi di fi bàyyi ko lu fi yonent bi bàyyi léegi lenn lu ci waaye mën a yokk te liñ ci yokk nag du jeex luñ ci yokk lu ne ab sos la luñ ci yokk lu ne ab sos la ak ku ko ci mën a yokk ak kum mën a doon ak téere buñ ko mën a bind ab sos la hmm. te bokkul ci diine ku koy jëfit di ci yaakaar ak pay sa bopp ngay tàddeel ndax ku koy jëfit ku ne la ngay jëf noonu ak bokkaay la ci yàlla ndax nit ñi dañuy ragal bokkaay te xamuñ ne ci lañ sax ndax kuy jëf lu wuuteeg li la yàlla digal yaa ngi bokkaale yàlla ak leneen ndax li ngay jëf noonu keneen a ko saxal te kooku saxal loolu ngay topp ndigalam yaa ngi koy bokkaale yàlla ndax kooku amul droit wu saxal lenn kii saxal mooy ki nga xam ne moo bind ta moom te ki bind ta moom du ñaar du ñett kenn la yàlla kese la yàlla moo mën a digaluñu korité digaluñu tabaski digaluñu tamxarit même coono yi nit yi daj ci li ñuy wax ay tudd yi yëpp yàlla amul fenn fu mu ko jàngale di wax naan da ngeen a war a xaar ba xale bi su juddoo ba am juróom-ñetti fan wala su juddoo ba mat juróom-ñaari fan su boobaa ñu wat ko reyal ko am xar nangam nangam tudd ko fenn la ko yàlla jàngalewut loolu sax du alxuraan fa soo leen ci alxuraan yàlla indi na fa ñaari misaal ci yonent yàlla Ibrahim ak yonent yàlla Zakariya yonti yàlla ibrahim bi amee ganu malaaka yooya boom ak soxnaam sax bi ñuy bégal ndaw sax bi ñuy bégal soxnaam sax maanaam ci doom ji ñuy wax isxaq ak ginnaaw isxaq yaxub boobu moom ëmb sax defagu ko nga xam ne kooku wax nañ ko turu doom ji sax te moom ëmbagul doom moom soo leen ba tey tamit ci yonti yàlla zakariya moom it noonu la demee nga xam ne ñooñu balaa ñuy juddu sax yàlla waxee na seenu tur ñoom kon kum ci mën a doon ku ne sa doom fu mu juddoo mën nga koo ma amoso mën nga koo jox tur ndax lu jiitu ñee lu jiitu sax ñu leen ëmb la yàlla joxe woon tur kon kum ci mën a doon ku ne sa doom juddoo jox ko tur loolu weeso na foofu la yem ay da ngay xaar juróom-ñetti fan da ngay xaar juróom-ñaari fan su faaw nga wut xaar fenn fu ko yàlla jàngale amut fu ko yàlla jàngale amut ay da nga koy watak soo ko watul ban karaw gi sobe la te ñun dañu daan wax loolu bu njëkk ba daawam sax xalaat waaye léegi karaw gi su dee sobe kanaa kon jëmm ji war a mën a doon sobe du ñoo bokk fi ñu bàyyi ko ak loolu fan la ko yàlla jàngale amul fenn fu ko yàlla jàngale te da gis nit ñi coono yi ñu ciy daj da ngay gis koo xam ne yow sa soxna mu ngi toll sax maa mu ngi toll diggante dem ba war a am doom nga waroon a nekk sax ci bànneex war a bëgg wala boo ko war a nekk koo xam ne da nga koy jàppale xam ne da ko war a saytu maanaam di ko jàppale ci loola waaye su am na foo xam su fa tollee sa xel dootul dal rawatina ci yenn góorgóorlu yi nga xam ne ñu ngi commencé xelaat ah su amee doom la ma ca war a def ak ci yëre yam war a sol ak xar maak nangam gaak nang te kenn tegu leen ko su doom jo juddoo ngeen waroon a nekk ci bànneex stress ngeen am te kenn tegu leen ko it ay nit leen ko teg yàlla tegu leen ko ngeen war a bànneexoo waxtu woowa war a bànneexu ci jamono boobu instant boobu mais stress ngeen am te kenn tegu leen ko yàlla tegu leen ko te ñun suñ société yi ci loolu la ñuy dund kenn tegu leen coono yooyu nga xam ne xale bi judd na jox nga ko jeex na amul leneen yeneen yi nit ñuy wax yëpp ay création la jël karaw ga peese ko def nii def yooyu amul fenn ñoom seeni aadaay bopp lañ jël jox leen ne mooy diine waaye du diine diine du aadaay kenn diine tëraliñu yàlla la te yàlla li mu tëral fii la ko tërale lu la waaye wax ne danga koo war a def laaj ko fan la ko yàlla wax ah sëñ diw moo wax nangam sëñ diw moo moom diine ci imaam diw moo wax nangam imaam diw moo moom diine ci diine ji yàllaa ko moom du diine ma samba du diine ma demba diine yàlla la yonent bi sax amutoon droit dugal leen wala wàññi lenn ci diine même li ñuy wax charia du moom moo ko tëral te nit ñu léegi bëri la ñuy dañuy da ngay dégg yenn saa yi ñu naan la lii charia la te la ngay wax ne charia la ay nitu ko tëral doo ko fekk ci alxuraan te yonent bi charia sax moom du njàngaleem moom déedéet yàlla daf ko caa teg ba noppi toppaloo ko ko nga xam ne loolu mu doon lu leer charia sax yàllaa ko tëral yonent bi amu ca wàll yonent bi li ko yàlla wax mbir yi yow amoo ci dara yenent bi nag mu mënta ñàkk ci mbir yi dara keneen di ñëw naan la am naa ci dara wala ñu naan la diw am na ca dara nga koy gëm loolu amut fenn suñu wax naan ah waaye lu ëpp ci nit ñi ci lii lañ nekk dem leen ngeen seetaan vidéo 26 ku fa dem da nga fa fekk ñuy wax ban rapport la yàlla am ak majorité loolu ku koy wax sax da nga xamul so demee ci alquran ci suratul lanam aya 116 da ngeen fekk suñu borom di wax ne so topé lu ëpp ci ñi nga xamé ne dañoo nekk ci suuf dañ lay réeral ci yoonu yalla ndax defuñ lu dul topp ay njott ak di sos ay katch loolu ka fi ne nak képp ku lay wax lu worok li yalla wax wala képp ku lay wax lu génn li yalla wax dila wax ne diine la la wax non ay njott ak sos képp la du diine kuko top yaa ngi topp leneen lu dul ndigalul yàlla te kon sa mujj doonul fenn fu dul safara ku wax ne yonent bi moo defoon nangam te lañ lay wax ne yonent bi moo ko defoon nekkul fii ku la ko mën a wax mu lay bëgg a xamal ne kon yonent bi daa jéngoon jëm ci tooñkat yi mu ngi lay xamal ne it yeneen bi ëllëg safara la jëm loolu nag ku ne xam na ne wirut kon la ngeen di wax kon xoolaat leen ko te xam ne wérut mbir mi dëgg-dëgg foofa na yonent bi moom yàllaa ko setal kenn ku ko mën a taqal ci dara amut kon yéen ñi nga xam ne yéen ko doon taqal yéen a war a xoolaat seen bopp ci tuuma yi nga xam ne moom ngeen sax ci di ko te wax naa leen kenn du dem ci alxuraan di fekk yàlla di wax ku sosol sama ndaw yàlla ku ma sosol ay kàcc kepp lay wax kon ku wax ne yonent bi defoon na nangam te wérut yaa ngi sosol yàlla yow te kum ci mën a doon ku ne su la sa moromum nit sosoloon nga indi ko ab coow rawatee nag léegi ngeen sosol yàlla ba noppi bëgg caa mucc nag kon nañ bàyyiwaat xel lu ñuy def bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla li mu war a wax lépp wax na ko ba mu leer diine yàlla amul ay coono wala yenn saa yi nga dégg ñu naan ah moom kay da ngay bëgg sax dara waaye yenn saa yi waajur yi nangam te li war ci diggante ñoom mooy rafetal ba tey yàlla dafa organiser loolu de